tiis gu métti moo am ca plage u Malika ñu fàttali leen démb dimanche askan wi yeewoo ci naqar woo xamante ni ca géej ga la amee ñu gën ko miin ci plage u Malibu la fa am ñu fa lab bilan bi nag tey jii na nag yokk na ba fukk ñi nga xamante ni ñoom la fa seen bakkan des ñu fàttali leen ni loole ca après midi bi la amee euh, démb ñu ngi tolloon ci juróom-ñeent ci li nga xamante ni moom la bilan Sénégal bi euh, xët yéenekaay yi moom leen indoon waaye euh, tey jii nii nag ca altine gi nee nañ bilan bi àgg na ba fukk ñu fàttali leen ni sapor pompier yi tamit def nañ fa intervention ba sax jot nañu sauver ñaari bàkkan yi nga xamante ne ni dañ leen a jëmale fële na la ca hôpital Kër Massar. waaye ñu fàttali leen ni ñett euh, gisuñu leen ndax euh, dañoo réer euh, di leen fàttali tamit ne plage bi pourtant dafa nekkoon plage goo xam ne dañ fa tere ñu di fa sàngoo waaye teewul nit ñi dem nañ sàngu ji fa te li ëpp ci ñi nga xamante ni ñoom la fa seen bakkan des dañuy di ay ndaw ñuy fàttali tamit autorité ñu gën a sévère xam naa ci lii nga xamante nii ay plage yu ñu tere la ñu di fa sango waaye xëy na tamit lan moo yóbbee nit ñi ba plage gu ñu tere ñu di fa sango ñu dem ba di fa sango ba seen bakkan di ca des waaye ci tënk daal fukk fi mu ne nii nag moom mooy bilan bi nga xamante ni moom mooy ñafa seen bàkkan des ñett dañoo réer gisuguñ leen ñaar sunu sapeur pompier jàmbaar yi jot nañ leen a sauver ba yóbbu nañ leen ca hôpitalu Kër Massar.